monsieur monsieur Fofana. ba tey ci discours de campagne mhm. euh, actuellement nous soxla maanaam euh, cohésion. maanaam ñu tempérer réew mi quoi. oui jàmm ji gën mais on voit un leader qui ci di wax je veux parler à euh, docteur Abdourahmane. Mhm. cette élection c'est la élection des salles contre l'élection des débats si yow sax la gis sax nga nga utilisé sa kii sa terme la. waaw mais loolu est-ce que tamit du remuer encore la plaie. xam nga ci réew mi gën a gën a gën a. xam nga encore xam nga man moom. li may wax man lu ma d'accordul dama koy wax. te en le disant je ne le dis pas parce que lii la wala la je dis ce que je pense quand j'ai entendu ses propos moi j'ai été choqué parce que l'un lu gën a c'est de dire c'est l'élection te ñiy dëkk parcelle contre ñiy dëkk Almadi mais moi, ña mu àndal di campagne Il faut que ñu dëkk Almadi et puis dëkk Almadi est-ce que c'est un crime Il yàlla may le la teraanga Daouda may na la loo de kër Almadi tu vas te refuser de l'acheter parce que tu veux pas vous dire que xam suis lu ko de dem dëkk choses. ba mu

gis nga ba bugan gay dani taxawé bañu ko spoil bañu ko non bañu ko évincé de l'élection mom mu japp ni dañ ko spolier ba mu naan élection bi un sall ne doit pas un ban ne doit pas remplacer un sall élection net doko bandum la dama taxaw ñaawlu ko parce que du ay cadeau yu wara gel tay ji bu tukulor yi taxone Amadou Ba sunu mbokk la voté len ko ñep ñu discours ethnique la lutax ñeneen ñi buñ ko waxe ñuy nopi loolu moy yefuna affaire bo xamné bi je le dénonce Aliou Dembourou Sall ba mu wax dama dénoncé ko Jean euh, bartlemy Diaz Gaston beng waxalé lam war dama dénoncé ko Moustapha c'est Ousmane Sonko ay rebelle lañu wala rebelle votel dénoncé ko kon on dénonce pour Abdourahmane Diouf ou pour Bougane et ça ça choque les gens moy nous quand on parle on reste sur des principes c'est des propos yo xamné ñom ñoom seen biir wa jaawale pardon wa awale am jëm nañ ko def nu leen neex pour jëm ko rectifier na non waxu kàll séeréer waxé wuñu waxu kall séeréer c'est-à-dire que dafa di lo xamné dal vraiment. mais fu ko waxé won les sénégalais applaudissent. ouais mais justement mais c'est pas parce que les sénégalais applaudissent que c'est bon parce que ñi fa nek ils ont envie d'entendre entendre lu leen ne lu lu di conforter dans leur position. lañ bëgg dégg quoi luñ bëgg dégg la ñi wax ndaxte gis nga podium bobu ku fa taxawoon jomay Diomaye euh, tu n'es pas le bon candidat. Hmm. ragal na do ñibbi sa mais ku fa taxaw né jomay tu es le meilleur ñu tàccu la voilà. ah oui. yéen a ngi gis ni Cheikh Bara day xëy dem defi ay chronique am. terewul bu bëccëgee mu dem campagne. mais kan moo ko dénoncé. kan moo ko dénoncé tout le monde trouve que c'est normal pas une question de ne pas faire la ak la xam nga gis nga élection yi di si vous a damay semaine élection candidat candidat j'arrête de faire les plateaux. le 24 Inch'Allah, si vous avez moi j'aurai mon candidat et je dirai publiquement kan moi sama candidat. Bougnou sur si le jour où je dis je je voici mon candidat j'arrête de faire les plateaux pour élection jeex parce que j'ai pris une position partisane. da ngay bañ propagande quoi. justement. ok damay bañ parti propagande. damay taxaw am position partisane. Mhm. bu boobaa boo ma c'est pour défendre celui que je veux défendre. mais du bëgguma loolu. Mhm. moo tax nag bu ma jàppee ni nit ki am droit ne moom diw mooy candidat mhm. je ne bañaluma ko loolu mais na am honnêteté ne médium bi may je ne l'utilise plus pour faire la propagande de mon candidat. mais un éminent un intellectuel comme Abdourahmane Diouf je rejoindre coalition Diomaye. mais c'est parce que c'est son droit. Parce comme c'est son droit c'est son droit c'est son droit c'est-à-dire que Abdourahmane Diouf euh, docteur Babacar Diop. c'est des minages intellectuels. Mm-hmm. c'est des minages acteurs politiques. Mm-hmm. élection jot ils ont fait leur choix nangul. comme tey jii gis nga ña bokkoon Benno Bokk Yaakaar doon tey jii bo Benno Bokk Pastef gisoo fi Serigne Gueye Diop gisoo fi Birima Mangara mhm. gisoo fi Samba Ndiaye bii nekkoon DG Grand Train mhm. Hmm? Mhm. gisoo fi Mimi Touré gisoo fi metre Moussa Diop donte le moom génnoon na Benno bu yàgg mais ñoom ñëpp ci nguur gi lañ bokkoon mais ana ñu tey ñoom ñëpp dem nañ ci coalition Diomaye seen choix la